del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yi waajal élection locale ñëpp xam nañ que dafa waroon am mais dañ ko annulé woon léegi ñu ñu koy waajal nii te xam nga euh, tey buñ ne medina dañuy ne euh, Khalifa rappeur yow yaa ngi doomu Médina te gis nga situation bu nekk ci Médina tey loo jàngatee loolu parce que am na fa Bamba Fall am na Seydou am na Cheikh. Mhm. Cheikh Ba mu ngi fa ah Bamba Fall mu ngi fa. Mhm. Seydou Gueye euh, mu ngi fa tamit. waaw xam nga tey si tey. Mhm. élection locale yi nga xamante ne nii waroon na am depuis deux mille dix neuf. ñu pousse ko ba deux mille vingt deux incha allah. fi ñuy tàmbalee rek mooy lancer message sénégalais yëpp. ak médinois yëpp. ñu dem li jëndi seen carte d'identité bindu si liste électorale yi. waaw parce que loolu mooy suñu arme loolu saa waay xoolal mooy moo ñuy may maanaam ñu dogal amul ma la. te tey si tey Medina par exemple ni muy doxee boo xool injustice bi am Sénégal bu ko gën a doy waar mafia bu doy waar moo am hmm. Bamba Fall jiite waaw. association malfaiteur bu garaaw moo am. Medina Bamba Fall Bamba Fall nekk chef de gang Bamba Fall doo xool askan wi maintenant falu ay deal politique rek. waaw mais est-ce que tu penses. pas deal politique sax parce que dina ko mën a si yàlla yi suñu papa Birame Sassoum Sy. moom moo bindaloon Bamba Fall procuration. pour mu nekk maire Médina à l'époque. parce que xëy na Birame Sassoum moom am na amuñu Médina mu nekkoon si yeneen yitte pour Sénégal xam yaakaar ni Bamba Fall bii nii war na mën a jiite Medina defar ko maanaam defar bu sell bu yiw malheureusement mooy li ma la wax politiciens yi ay migré lañ. politique politiciens. dañu lay séen. politicien mooy nga xam ne maanaam leen di yaakaar gëm leen parce que dañ lay baax wan la jikko bu baax mais au fond nit dafa lëndëm ay nit yu bon nañ. buñ demee ba falu rek comme genre Bamba Fall yi bëgg nañ fi mais Bamba Fall politicien bu bon la est-ce que tey si tey même si yàlla di gërëm saa suñ si mu defee procuration Bamba Fall nekk maire mm-hmm. alors Bamba Fall nekk na maire ba 2014 élection locale yi mm-hmm. coalition taxawu Dakar bu Khalifa Sall moo gagné mm-hmm. moo tax Bamba Fall nekkaat maire yaa yàlla ma yàlla xare àjjana boo xool Bamba Fall war na ko parce que tey si tey ay njabootam ñu si mel ni suñuy frère ñoom Bakar Waly si ay ñoom Bouba. Mhm. ñooñu ñëpp c'est la famille te ñu ngi bokk di ànd ak ñun si collectif des jeunes de la Médina. te collectif des jeunes de la Médina dafa takku doon benn seene Bamba Fall dégage. mais est-ce que est-ce que tu penses que Bamba Fall euh, Cheikh Ba dina toog euh, foofu dina gagner élection yi. ak ak Alioune Ndoye Plateau est-ce que tu penses que ñoom dinañ gagner euh, du est-ce que tu penses que am na ñeneen ñu leen mën a dominer. non non bul jaxase mairie Plateau. Alioune Ndoye boobu wax maintenant bokkul. ñun beneen maintenant nañ wax. waaw beneen maintenant tey si tey. déglu wala bu ma leeralal maanaam bu askanu maintenant. tey si tey. askanu maintenant ñëpp dañ taxaw doon benn say Bamba Fall dégage. Bamba Fall nag bëggul dégg loolu. te moom maanaam. politicien la mi xool ay pexe yoo xamante ne nii non ma rek déglu rek. dindi foofu ma leeralal la dama ni la Bamba Fall tey si tey. Bamba Fall dégage boobu noonu moom rëy maanaam xoolul ni maanaam parce que nu Médina ñoom ñoo moom mairie Médina. Hmm. dafa taxaw di jaay di jaayante doole ak askanu Médina ne du bàyyi mu sedd ne bu demee day gagné di def lu gën a garaaw muy ay transfert d'électeurs Bamba Fall day dem si yeneen zone ay Fass Colobane Gueule Tapée ay Parcelles ay Ouakam. Hmm. feneen ak feneen di fa lijjanti maanaam ay électeurs parce que noonu doon def si don di jël maanaam suñu alal ñu doon mën naa sàmm allah naan da koy joxe feneen ak feneen est ay dégg mm-hmm. ñooñu lay ñëw daf leen tracer d'électeurs li jënti ñëw ñëpp ñëw andi leen pour ñëw voter Médina pour mu sàcc élection yi moom instant loolu mooy pexeem comprendre mm-hmm. te tey si tey moom ay mafia am chaque jour weer ko xam nga si affaire wu affaire wu affaire wu maanaam chef de quartier yooyu noonu ñuy wax mais dafa tëb tëb moom si boppam fal ay délégué de quartier comprendre na mm-hmm. ay délégué quartier yoo xamante ni nii ku si nekk maanaam ñu ngi lijjanti ay carte d'identité xam nga di créer maanaam ay carte d'identité pour après ñoom gars man la suñu demee si vote xam ñu dajale affaire yi ñëw teg teg maanaam su boobaa ay maanaam vote fictif lay nekk ñoo xamante ni nii saa waay xoolal dëkkuñu maintenant te bokkuñu maintenant kenn xamu leen maintenant ñoom ñuy ñëw après force ñu leen bëgg sàcc élection yi di ko mos a seetaan te ñun doomu maintenant gëstu xam-xamale la. Mm-hmm. man su ma xamee mafia buy daw si noddu askanu maintenant te yoree wu ma kon man complice la quoi. dëgg la da te man kenn du ma jënd. nit yu Bamba Fall yi ma doon jéem a jënd saa waay xam nañ ni lépp dëgg la. man du ah. Bamba Fall du Seydou Gueye du Cheikh Ba non déglu ma leen ngir yàlla dama ni la ah, man du Cheikh Ba du Seydou Gueye du Bamba Fall ñoom ñëpp laa yamale ñun Medina la ñu wax suñu Medina ku ñu koy defaral Medina normal nekk number one ñun loolu la ñu wax. Bamba Fall mu ngi liggéey non. mais la Bamba Fall liggéeyu sàcc la wax ba sonn te wax nañ ko ba sonn mu porté ñu plainte parce que dañoo yor ay dossiers yoon yor ay preuve ok dëkk bi am la moo tax yoon gars ma la suñu waay mënu mënuñu woo ñun nga xamante ne nii gars mais autorité la ba xool mooy président wu gox bi ñu yor ay preuve ay mafia mm-hmm. yu leer nañu as yaay dégg. ñëw gaa man la su yàlla ko wax ni sàcc na pour mu yóbbu ñu yoon mais moom ba léegi nanguwul ñu yóbbu yoon parce que xam na ni gars yi xëy mooy loolu mais damay ay dil ak ay mafia yoo xamante te loolu xoola dénoncé woon naa fan yee passé. bu exemple laa lay wax buñ demee élection Bamba Fall gagné lan ngeen nar a def yéen. Bamba Fall mu gagné. mënul gagné. ñu ko tegee si yoon kase Bamba Fall du gagné te moom laa la wax may la mafia yooyu noonu di daw. ñu su mel ni direction d'électeur yi ak yooyu noonu yëpp ñu ngi lancé message état bi ñoom ñooy responsable ñoom autorité yi saawaay. gis nga maintenant saawaay xoola ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda bu ñu demee force loo xamante ni bugguñu ko. wala gëmuñu ko. barki alxuraanu këram dina gën a metti. li si gën a nax réew mi bët. gis ngeen fan yëpp si ginnaaw. bi mu bëggee jaay suñu terrain. ñu génne ne non à la privatisation terrain Jaraaf. waaw askan bi yëpp ñu ngi a naan waa Medina ñu ngi xeexoo seen biir. tey say maa ngi yee askanu Medina Medina booy xoolal duñ ay ngaaxa booy bu leen sax nangu doon ay ngaaxa booy. Mhm. ba ma faal bugguñu booy ju dóowul sax xoolal Medina. est-ce que ay dégg maintenant booy xoolal ñun benn nañ booy te xoolal duñ ay ngaaxa ay nante lañ xel bu sell lañ àndandoo bu ñu benn politicien. jaxasee parce que temps est passé ñu ma dénoncé affaire u Seydou bi ak Bamba Fall seen mafia yooyu ñuy teg di waxtaan parce que Bamba Fall mooy lijjanti Gloria Gloria di Khalifa Sall xam après Seydou Guèye tamit jéem a xool moom tamit nan lay def ba nekk maire xam pour après Bamba Fall sax mun na ñëw génn taxaw ne man dootuma nekk ci candidat jàppale leen Seydou Guèye comprendre na mafia yooyu yëpp xam nañ nu mu demee barki bàñña suñu du ñu tuumaal lu dil boobu noonu man bi ma génnee saa ba kalaate ko parce que loolu su ma ko xamee te waxuma ko complice la échange te xoola seen liggéey bu bëggee nekk maire day ñëw askanu mën naa fal ko mais du demee di nekk maire si ay dil wala ay mafia wala ay complot mais loolu ma ko dénoncé mais si ñabootu Seydou Gueye mm-hmm. parce que ñoom dèjà sax bëriwuñu parce que Seydou Gueye amul benn crédibilité bi biir Médina saa amul benn crédibilité Médina parce que koo xamante ni nii askanu Medina yàgg na sonn jaaxle feebar musu ko taxawu waaye Seydou Gueye kañ la nekk si état. musul taxawu askanu Medina mais il suffit gars man la suma ñu dégg benn doomu Medina bu jub maanaam di jàppale waa Medina hmm. xam nga. ku si mel ni Cheikh Ahmed Tidiane ba boobu noonu. di defar ay affaire Medina. après gars yi non non ñu ñëw jug affaire yu jéego di politique wala dara Cheikh Ahmed Tidiane ba boobu faaloon ko te ba nii may ah, ah, ay mafia mais dañoo xamul mafia wam ku xam mafia wam nañu ko xamal ñu kalaate ko ndax ñun mafia mooy lu ma la wax amul yërmande amul ma Samba amul ma Demba. ku fi def sa guuda mooy loolu mais. ok nañ moom si wàllam maanaam. ay affaire yu bëri mais ba léegi gisaguñu si moom loo xamante ne nii. mafia la wala lu salte wala injustice. Mm. xam nga au contraire. ku baax la ku gis te tamit askan wi maintenant ñu bëri dañuy ñëw di ñu wax si moom lu baax. ku baax su mel ni bëri Demba Ndiaye tamxarit bi nii xam nga yow suñu maire Bamba Fall ñu dënk la suñu alalu maintenant. nga war a dem si jumaa yi jox leen ay nag mais non non Cheikh Tidiane Ba moo fee. nekkul maire ñëw di wër jumaa Medina yëpp di joxe ay nag. mais est-ce que tamit nekkul di def loolu ba mu falu xam nga. tey ba mu fal buy def loolu ba mu fal buy jug di séddale ay nag xëy na. ba Medina la koy séddale parce que ñu ngi sóoraale leneen ak leneen mais loolu duñ a nangu. Ah. voilà seen liggéey boobu noonu doomu Medina la te maanaam xëy na waroon na taxawu Medina. bu yàgg. parce que moom yàgg na nekk si nguur. waroon na maanaam ñëw Medina di jàppale doomu Medina yi xam saa pour autant ne bëgg naa fi nekk maire wala dana. comprendre nga. Mm. voilà bàyyi leen du leen dénkee ñun alal ngeen war ñu jàppale war ñu dimbali mais doo leen ko def da ngeen di bàyyi ba élection jege wala dana ngeen bëgg ñëw taxaw di ndellu di def action te tous doo leen dara askan faale wu te gëmuñu leen xam tey si tey am na ay colossal yu tekkiwul dara yoo xamante ne nii du ma dénoncé loolu noonu si dilu Bamba Fall ak Seydou Gueye jug nañ di saaga di ma menacé di def affaire xam si njabootu Seydou Gueye. te yow dafa am xëy na xëy na Seydou Gueye noonu la leen yaree est-ce ay dégg xëy na Seydou Gueye noonu la leen yaree quoi ay violence ay menacé wala ay saaga ay yéen yi Baye Fall man du ma man xaw ma luy ragal. te gone bu ndaw bu ma tooñee da may jéggi dem ba si baayam ndax du maax ñoom est-ce que yaa ngi dégg Seydou Gueye bu amul crédibilité maintenant ñu dañ koy wax. dëgg la parce que nu sawar jeunesse su Medina di budbudi ci suuf naan waa ji gayaan ne leen ko mu bàyyi ñaan cigarette loolu bu amul nit yi nga wax. wala hmm. ko. Hmm. loolu kese la quoi bu ñu yaroo rek sawaay xoola ñu yaroo mais tant que yéen a jaay affaire de réewante naan na ngeen di jéem indi violence ah. xaa ngeen tëral ñu ren yi ñu dee ba néew ñu suul ñu sinon ñoo leen gën a saawaay xoolal billaay wallaay wa talaay di wax ni nag ñun mën naa woote ñu fa violence woote wuñ xiiroo woote wuñ ngaayoo. waaw jàmm ak salaam nañuy woote sensibiliser jeunesse bi. Mhm. ñu yeewu parce que maintenant gëstu xam-xamale la. yàgg na leen wax injustice yi am biir Medina te du wax nañ leen Medina budget bi mun na toll ba quatre cinq milliards par année. Mhm. parce que commerce yi ñu am rek amul fenn si biir Dakar bu jaay. fëpp ay commerce la. chinois yëpp rue yi. 1 ba 47 fépp foo munti dugg gaama la suma commerce la. xaalis juuti yooyu noonu kese bu tegu woon si yoon mooy xoolal plusieurs Médina mun nañ jugee 800 900 millions dem ba 5 milliards par année. Mm. xam nga booy ñun doo Médina yi askan wi Médina booy yi ñun ñoo ko am job chômeur bi ñëpp war am job te mairie bi saa waay xoola mun na gérer loolu à plus de quatre-vingt pour cent. il faut que ñuy maanaam sensibiliser askanu Médina quoi. Euh, wax bi am na solo. del déglu del xool.